tubaab yi def rek lislaam dekkiwaat tey Serigne Touba nekk fi tey ñun ñoo fi nekk tey fi mu toon lii tubaab yi nii moo la nekku ci Serigne Touba moo dellusiwaat lii Macky Sall tubaab yee ko ko def loo te buñ ko defee dañ ko dëgg dañ ko lay ak yonent bi dañ ko lay ak Serigne Touba dañ ko lay ak mag ñu baax ñi kon nag na ñëpp na noo jeunesse bi nee na noo tey defal micro trottoir boo defoon micro trottoir dem ci jeunesse bi dem ci askan wi ñëpp noo lañ wax jarul nag ngeen di guddal jarul ngeen di sonal seen bopp jeunesse bi ne non bi ci des nag mooy li nga xameel na tey moom moo am jurbel di kii nga xam ne moom moo dem jaay jurbel bu ko neexee mën naa jaay jurbel la wu jurbel waroon a def def na ko jël nañ jurbel teg nañ ko ci loxoom bu ko neexee na ko jaay bu ko neexee na def lu ko neex waaye ñun ci suñu jëm ñoo jëlal suñu bopp képp koo xam ne fal nañ la fi ëllëg nga dem jaay jurbel ñun fa ñu toog daan fa toog dooni gor doon ay jullit loolu daal lañ gëm loolu ñun waa jurbel loolu la ñu wax tey tamit jërëjëf kon